Cheikh euh, Diop euh, mooy directeur u Jacques euh, Chirac Pape bu ñu jëlee prétexte bi nga xam ne moo tax ñu def émission bi mooy drogue boo xam ne dañu ko teg loxo mm-hmm. ñu dugaloon ko ci ambulance yow en tant que ku xam yooyu trafic bi ni muy ni muy demee ni muy duggee ci biir réew mi ci yi nga xam ne muy duggee ci ak place yi nga xam ne dañu ko cee produire ci biir Sénégal jàpp nga ne loolu Euh, mooy ne àgg nañ ci extrême ci gravité euh, yaatuwaayu drogue bi ci biir Sénégal euh, wala déet ak yan voie lañu ak moyen la ñu war a mën a def nag pour contrôle bi itam gën a vigilant. bon Oustaz jërëjëf mais pour relativiser mbirum drogue bi ñuy saisir ci ambulance bi dama ne xëy na dañ ko jàpp moo tax mu mu fës mais li fi yàgg la ba ci ay corbillard sax. Ah. donc loolu saa à dire euh, trafiquants yi ñoom saa su nekk bu ñu yeewoo rek ñu ngi ut ay subterfuge yi nga xam ne moom la ñuy def pour mën a jàllale la ñi ñuy jàllale. léegi lii nekk une drogue bi nga xam ne dañu ko produire fii ci biir Sénégal euh, mooy li commissaire wax sànq mooy yàmbaa gi euh, yàmbaa gi bëri na bëri Sénégal ba nga xam ne c'est vrai que ñu ngi def ay saisies mais. benn problématique moo am man te boobu ak léegi mooy question bu may posé wu mooy que pourquoi ci centre yi nga xam ne béréb yi nga xam ne fa nañ koy béyee mu leer naññ ne que béréb yi nañ koy béyee doo gis takk der yi di fa def ay opération hmm. loolu itam c'est man mu nekk un problème bi nga xam ne boobu ak léegi xam naa après commissaire dana danañu ci wax pourquoi loolu nekk na déjà la nga xam ne ci wàllu yàmbaa bi rek constitué na problème pour ñi nga xam ne ñoo nekk les services de sécurité yi nga xam ne ñoo nekk par exemple boo jógee Casamance pour si Dakar fooy dégg fi ñuy jàppee yàmbaa gi ay Kër ay Ayib wala ci waaxu géej yi fii teeru baay soo gi wala euh, mbaaw wala jam ñaajo et donc mooy am na lu ñuy romb ba dugg si fii donc hmm. man foofu mooy sama premier questionnement bi ci présence drogue bi nga xam ne mooy yàmbaa fii surtout dans les zones urbaines Mm-hmm. mais beneen affaire bi mooy euh, dafa am benn politique de lutte contre la drogue bi nga xam ne dafi amoon depuis les années quatre-vingt mm-hmm. mooy balaa ñoo créé Orcotis brigade de stupes bi fi nekkoon après ñu créé Orcotis en 1997 mais ci diggante bi ñu seetlu woon ni que état bi da doon def lépp pour ña nga xam ne ñoo nekk Orcotis ñu yónni leen dans les meilleures écoles ñu former leen fa fu mel ni Allemagne BK la Bundeskrim nga xam ne c'est l'une des meilleures écoles en matière de lutte contre la drogue de criminalité boo xoolee fa nañ leen doon yóbbu code de la drogue aussi ñu xool ni que depuis boobu évolué wul évolué évolution bi nga xam ne ñii nga xam ne ñooy lutter contre la drogue se retrouve dedans mooy lan mooy que dañ nekk ci benn milieu bi nga xam ne on parle de milliards on on parle de milliards de la daal waaw. Euh, soo demee ci yeneen dëkk yi commissaire il est yàgg na dem ay rencontre chef OCRTIS ak chef unité de lutte contre la drogue ñooñu protection yi ñu doon am cest à ñoom garde corps c'est-à-dire leen doon protéger ba seen njaboot moom mi mosu ko am c'est-à-dire pour wax la ni ko dëkk yooyu li ñu jëlee au sérieux la lutte contre la drogue. mooy que le kii nga xam ne moo jiite la lutte contre la drogue daanaka bu weesoo président la république ak quelques ministres amul ku ko gën a protégé wu et à juste titre mooy benn ñaar toujours ci cadre évolution code de la drogue ñu waroon fexe ba nga xam ne ñii ñii ci bër ñii ciy xeex chaque jour nga xam ne euh, am na possibilité ñi ger leen ñu def ay fonds commun yi nga xam ne comme ni mu amee ci douane li ñu saisir mu am lañ leen ci rétrocédé mais daanaka loolu tamit bokk na ci liy sooxe ci lutte contre la drogue fii au Sénégal. il faut nga leeral foofu li ñuy saisir. mooy maanaam lépp lu ñu saisir saisir bu ñu. xayma ko no bu ñu saisiree xayma ko wala les biens mobiliers ou immobiliers. Mhm. automatiquement dañ ko war a xayma jaay ko ñoom ñu jox leen ko boo demee ci dëkk yu mel ni ay États-Unis et Brésil c'est comme ça que ça se passe mooy que ñi nga xam ne ñoo yoree la lutte contre la drogue pour les à l'abri moytu ñu guerre leen wala moytu leen leneen non seulement. Euh, bu ñu jàppee dañ koy xayma jox leen ci seen wàll comme douane nañ koy defee bu ñu jàppee dara ñu xayma jox leen ci seen wàll mooy lu ñu tuddee fonkum beneen bi mooy dañ leen war a aar protéger leen parce que milieu drogue ay mbirum cartel la cartel yooyu dañuy yore ay bande yi nga xam ne bande yooyu c'est comme des armées waaw comme des armées euh, am na ay dëkk yi nga xam ne du ma ko tudd mais ay ay ay ay ministre ak ay procureur daw nañu seen dëkk fii fii dans la sous-région génne nañu seen dëkk dem waaw dem toog yeneen dëkk parce que dañ leen doon menacé donc loolu yëpp pour wane la euh, importance su encadrer ak soutenir ñi nga xam ne ñooy lutte contre la drogue cest à bu ñu bëggee am tey jii résultat bu mm-hmm. baax ci drogue bi ci lutte contre la drogue mooy que le code de la drogue ñu revoir ko ba pare nga xam ne daañu jox nit ñi ay moyens conséquents beneen bi ci biir OCRTIS. pen yi itam. non pour man sax pen yi ba léegi sax pen yi avec la loi Latif Guèye je crois que sax euh, pen yi sax ëpp na euh, je dirais pas ëpp na mais pen yi. mot na daal na daal. Euh, beneen affaire bi j'ai j'ai perdu le fil de mon propos là ci li ma doon waxati encore mooy que ci biir OCRTIS. Hmm. parce que ci émission dañ ne ko. moom moo war a centraliser la nga xam ne mooy lutte contre la drogue mais mu am ay faits yi nga xam ne ça existe dans tous les pays du monde mooy la ñuy wax un peu entre guillemets la guerre des polices fii Sénégal dañu ne ORCOTIS moom moo yore la mission de lutte contre la drogue moo koy centraliser mooy centraliser les renseignements mooy fexe chaque année produire un rapport bi nga xam ne qui est destiné à la hiérarchie mais day am ay genre querelle intestine yi nga xam ne des fois arrangé wul lii nga xam ne mooy travail orcutis maanaam mun na am benn zone bi nga xam ne euh, am nañ fa peut-être un renseignement ou bien am ñu fa nekk am fa un renseignement te du ñu fexe ba renseignement boobu egsi ci orcutis donc loolu aussi day poser une une problématique moo tax ma ne il faut que ñu revoiraat le décret de 97. Mmh. réorganiser Orcotis. Mmh. faire en sorte que ñii nga xam ne ñoo fa nekk qui soit doté de moyens c'est-à-dire que mooy à chaque fois que bu amee saisie ñu désintéressé leen. Mm-hmm. ba pare nag daal di bénéficier de ce qu'on une protection. bu ñu génnee ci loolu nag mooy li ma njëkkoon wax sama njëlbeen wax mooy fi nga xam ne nañ koy béyee te mu nekk fii biir Sénégal muy yàmbaa googu ñu fexe. ba nga xam ne tout temps côté am na ay unités yoo xam ne qui sont disponibles ñi mën a di def régulièrement des opérations coup de poing du ñu arrêté béy bi mais au moins daa daañu wàññi. la nga xam ne moom lay jur ak la nga xam ne moom la ñuy évacuer ci ay gox yu mel ni dakaar wala yu mel ni Tëngéej wala yu mel ni Thiès. jërëjëf foofu sax laay ñëwee ci commissaire commissaire dégg nga li pap wax euh, mais dama ci ñambaas dara maanaam nee na zone yi nga xam ne foofu la koy produire mu ngi mel ne. xeex bi àggul foofu carrément ni mu fa war a àggee ñu dem seet tool yooyu bu ko defee ñu seet nuñ ko yàqee waaye ba ca topp mooy euh, koñ boo dem daanaka dangay ngay dégg ñuy naan ñële de day day jaay drogue wala kële day jaay drogue wala ci koñ bi koñ yu bari ñu ñi xam nañu fi ñuy jaayee drogue ci koñ yi nit ñi xam nañ ko yaakaar naa sécurité bi moo ko war a gën a xam lu tax itam du ñuy euh, faral di song ñooñu pour euh, mën leen jeexal carrément ci ci ci ci système boobu ñuy ñuy jaay lan mooy problème bi ñàkk moyen la wala. waaw ci première question bi nga posé mooy euh, xeex bi ñu war a xeex drogue bi ci fi ñu koy. produire produire. Hmm.